dañoo ñëw sànni ay rëbb waaye ñëw di inauguré lan la ñuy inauguré gare routière de Saly Aérodrome muy infrastructure boo xam ne bii gars yi di xëccoo bu fekkoon ne seen pexe ci woon na kon tey ay kër lay doon ba sës ca Taliba gars yi di xëccoo ak ñun seen pexe bu ci woon 2014 kon tey gare routière boobu ay kër lay doon parce que ba ñëwee. dañoo fekk ne espace bi dagg nañ ko ay kër ba ca digg ba dañoo ñëw ne fii gare routière la war a doon ñañ fa daggaloon ay kër ñu jëlaat ko remboursé leen ay kër feneen ne leen fii projet bu war a jariñ askan wi moo fi war a samp mais ay kër waruñu fi am pourtant bu ñu neexoon ñu négocier ak ñoom ne leen jox leen ñu ñaari kër ci taatu tali bi ñu bàyyi mu sett waaye loolu ñun jitteeluñu ay kër yi ci terrain ku dem ci réseaux sociaux yi ko wax ñun loolu yitteluñu la ñuy yitteloon mooy def ko benn infrastructure boo xam ne bii sari aérodrome transporteur yi ak bopp xeet boo xam ne bii yaa ngi fi di yëngatu dina doon un pôle économique sari aérodrome bi ci mën a dund kon loolu moo nekkoon suñu yéene ci waaye xam nga ne entre yéene ak jëf sore na trop biñ ko amee société bu tudd Go Group ne pas là pour accompagner investissement bi ci un milliard de francs CFA un milliard de francs CFA xam ngeen tali que ñu def tali rek tali yi ñu def mu wër gaalu xamul toll tali bu ñuul la tali bu ñuul nga def ci 100 mètres tali xaalis Il y la des de millions mu def voirie yi mu wër ci biir mu def am am am centre commercial am station service ma leen di xamal ne un franc bu commune bi dugg ci koo moo financé un milliard yi ba mu àgg ñëpp àgg waaw koo groupe koo defee financement bu toll noonu defu ko pour maye ko mais partenariat la loolu lañ tuddee partenariat gagnant gagnant la am na suuf bëgg na gaalu ceer naa fekk samay transporteur bi tontolaat ay taatu garab bu tayee commandant gendarmerie Saly dàq leen bu subaa commandant gendarmerie Mbour dàq leen bët bu set may ñaan bët bu set may plaider di ñaan di ñaan ba lu sotee ñaan ma ne commandant damaa bëgg rek may ma une bonne fois nga bàyyi transporteurs yi ñu continuer seen activité li ma la mën a assurer mooy place bi dinaa ko def gaaru teel incha jël un milliard de francs CFA war ko investir ci place boo xam ne bii moomu ko amu ci intérêt waaye dëgg-dëgg il faut que koo groupe gis ci lii moo waral station service bi centre commercial bi commune bi am na ci vingt cantines yoo xam ne yi incha allah conseil municipal bi ñu war a samp bu ko sampee ba pare conseil municipal bi mooy wax ñaar fukki cantines yooyu nan ne ñun caaxaan bi la ñu place bu ñu defoon ay kër ba pare nga nangu ko delloo ko askan wi def bu ñu defoon centre commercial kese sax jar na ko waaye ñu def gare routière tey jii benn oto dotul tontuwaat ci ay mbedd ci di salee retour suñu paree dañ leen koy jébbal ñoom ñu gérer ko seen wax di départ aérodrome dem Kër Samba départ aérodrome dem Malikounda Bambara départ seen aérodrome dem Dakar dem Thiès dem Sow kon ñun li ñuy def dañ koo xam commune Malicounda bu bëggoon na tabax gare routière u deux millions mën nañoo def mandat bi ba mu jeex te gare routière bi du pare te du mel nañu bëgg kon liggéey bi liggéey bi dafa war a ànd ak xel ànd ak stratégie mais nekkul ne n'importe comment ngay ñëw di liggéey sinon doo am résultat kon ma bëgg leen a xamal ne Saly Aérodrome gare routière baa ngoog seen gare ceer la comité bi ngeen créé au niveau de ce quartier nga xam ne ñooy saytu soxlay quartier bi suñu paree daañu toog waxtaan ak transporteurs yi ensemble ngeen xool ngeen gisee seen bopp ci gare routière boobu